jërë ngeen jëf mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu fi leen daan nuyoo ah si Wassare Lamb Wassare TV tey ñu nekk fii nga xamante ni muy mooy géejuwaay ci wetu Roi Baudouin seet si benn xale boo xamante ne dafa bokk ci làmb koo xamante ni mën naa ne phénomène la ndax moom fu mu jógee waa géejuwaay jóg waa jàmm gën jóg waa Pikine jóg xale la boo xamante ni nii làmb da ko bàyyi xel ndax bu ñëwee làmb ju mbëre dina ko neexal dina bàkk mu neex dina bëre mu neex dina tuus dina yënga estaat te xale boo xamante ni boo ko xoolee boo ko gisee muy dem da nga naan motul mbër waaye bu simee ko caay-caay mbër ci moom sawarte bi nekk ci moom euh, mën naa ne band géew bi nekk ci moom muy Bou Siteu xale boo xamante ni am na mbooloo ah def na lële ci làmb tey na ñu ñëw seet si kopp waxtaan ak moom ci làmb waxtaan ak moom li nga xamante ni moo jëm ci carrière am dafa mel ni sax suma ma juumul for naa ci wéyu béy léegi bi mu yegsee ne moom am na combat waaye combat bi ma dégg combat boobu dama ko dama ko dégg sama xol seet ndax xale bi muy dajal ki nga xamante ni mooy Malick Ndiaye 37 fu ah promoteur bi tëgg loolu juumul te doful paan tongalu ko ndax làmb jooju ah biir arène nationale ma saison bi daal yow kàggu dafa mel dafa commencé neex te tijjeegul bëgg naa nag ñu dem seeti ko waxtaan ak moom ci lu jëm ci làmb waxtaan ak moom ci lu jëm ci kayam ah waxtaan ak moom ci ni muy dundee te di leen wax nag bu leen fàtte di abonné di bës kolos bi di ko jàpp foofu abonné ci wasaare làmb wasaare TV lépp di leen dal dara du leen ci rëcc ak fi yeneen feem yeneen facette kàggu aja ñu dem jërë jëf ñu nuyuwaat leen ma doon wax ak ni muy ndaanaan boo xamante ni nii boo ko gisee doo laajte ana mbër mi ndax boo ko gisee gis Siteu Bou Siteu a ngi nii nuyu naa la. waaw ginnaaw bi ñu sant yàlla julli si bi di sant samay ñaari waajur di sant waa Géejawaay bu baax a baax. waaw di sant fi ñëw nii place Ibra Fall maa ngi koy bégee di sant Njawar di bégee Mbay Warax bu baax ak El xam nga maa ngi nuyu bu baax a baax ak Lindo suñu grand moom day jàpp si affaire yi quoi di nuyu suñu soxna yi toog bu baax a baax waaw. mais Bou da nga sedd. ma nga sedd Bou Siteu ko xam xam xam xam ko ci neexal mais ma ñëw fekk la nga sedd ni nu demee nii. non du loolu sax te parce xam nga rek maanaam léegi xam nga rek dama am conseil quoi waaw dama xam nga ñu may conseil naa ma del waxee nii te parce am na ñoo xam ne maanaam dafa ñoo xam ne dañuy gisee si waxam waaw te yow xam nga ne yow man Baye Fall laa. Ah, da nga leer sax. <laughs> noonu la demee non gis nga rek waa Géejawaar rek su mel ñoom Ibra Fall gars yi dañ siy jàpp. ñoom saala mécanicien scooter yi maa ngi leen di nuyu bu baax ñoom baylaat ñoom baaba ñoom jogo xam nga maa ngi bëggee képp kuy defar moto rek maa lay bëggee bu baax a baax waaw ñun xam nañ Bou Siteu mais ñi nga xamante ni dañuy seetaan Wassare Lamb te gisaguñ Bou Siteu am na ñoo xamante ni xamuñu ko boo ñu doon wax Bou Siteu kan mooy Bou Siteu waaw Bou Siteu moom benn xale la rek waaw juddoo géejawaay maanaam defee fii lu ne waaw ku wax saako jor wax géejawaay waaw man si ginnaaw saako joor laa nekkoon naa doon topp xam nga. waaw mu tàggat ma si yu bari nag xam nga ba tey yàlla def xam nga ma dem ba xam nga rek dugg si làmb waaw mais bu Siteu moom Baay Faal xam nga waaw di bëggee waa jàmm bu baax di nuyu Siteu sama sama sama lépp. sama <laughs> la nekk. waaw maa ngi nekk écurie Mor Fadam. laa nekk waaw. ñaata combat nga def. waaw six victoire ñaari défaite la am. damay ñëw léegi ñu ne ma est-ce que sa waay jëlul avance. waaw instant yi pour l'instant nii suba bi sax maa ngi Malick Ndiaye 37 fou Pape Sarr moo ko tëgg bu Pikine maa ngi koy nuyu bu baax maa ngi Malick Ndiaye ko waa ah, loolu ba waxtaan nga ceeg say mbokk Malick Ndiaye 37 fou men. waaw combat bi confirmé tey jii la confirmé sax ñu ne ma signature bi suba la waaw. Ah, lu nga dugg xam nga Malick Ndiaye 37 fou Malick Ndiaye wuyu bandi. ah Malick Ndiaye mën digg jéw ah Malick Ndiaye xam naa ko baax kooku mag la te mag ak xale yow xam nga ni mag ak tamit ah eh, fooy fooy teg sa xaalis boo doon teg. <laughs> wala yow kenn du xool Malick Ndiaye di teg <laughs> waaw kay noonu la demee nag <laughs> Malick Ndiaye daal na waaj rek te xam ne moo loolu tarkindaa bi la dajal waaw. mais nga nekk géejuwaay dëkk bi waay ku ne xam na ne géejuwaay dañoo mën a sot mais chaque fois da lay dégg ngay wax jàmm gën Pikine est-ce que ak làmb ni mu fiire est-ce que loolu des fois du la xaw a empêche ci yenn yi. non man maanaam man loolu bàyyiwuma ko xel sax ay di comme di tudd ay yeneen gox te parce que foofu dama fa am ay mboq. Mhm. waaw fu si mel ni jàmm gan maanaam foofu man su ma jógee ñooñu dañuy jóg ñooñu dañoo yàgg a jóg avant arène ndax dañ doon jóg si mbapat. waaw ba si sama combat arène yi yëpp gis nga gars yi fu la ñuy def ñëw waa jàmm gan xam nga ay benn baraak foo xalaat man maanaam man bu Siteu bu Siteu international laa léegi. man su may bëre fu ne la doomu aadama di jógee du ñëw waa gunaas xam nga maa nuy bu baax a baax da gaa yi dañ siy jàpp waaw man su ma amee combat jàmm gan benn baraak bàyyi faale te parce que daa am lu ma dund ak ñoom. mais loolu noonu lan la yëg boobu ñu am si yow ba boo xewlee ñoom ñëpp bàyyi seen yitte ñëw. waaw yëg-yëg boobu noonu la muy xam nga rek maanaam du si maanaam du si làmb avant làmb la woon waaw maa ngi ñoom maanaam avant làmb la woon quoi xam nga rek ak nekk bàyyi faal xam nga. suñu xewlee suñ ma ko yëgalee ma dem fa xam nga rek dem ba gars yi man ba pare xam nga rek am ñoo xam ne dañu ma bëgg si Baye Fall bi ma doon parce que xam nga rek man Baye Fall laa looloo waral sax xam nga rek mooy loolu su ma jógee ñëpp ay jóg waaw bilaa du dara nag waaw. mais dañ la gis état bi demeewul noonu mais saa bu ñëwee làmb mbooloo mi ngay andi. Ah, te boobu ba léegi gars yi dañ lay toog kóolute googu ñu am ci yow est-ce que des fois doo gis yenn mbër yi xam nga xaw a xeeb sa bopp. du ko yokk état beeg yooyu est-ce que des fois du la dal. waaw yenn saa nag dafa may dal mais man saa ko yor dafa am lu mu def si man. waaw dafa am lu mu def si man ba punkal sax man man punkal laa gën a mën a bëreel ko sama moroom man ni may gisee nii géant laa gën a mën a bëreel ko sama morom si laa gën a mën a wane samay. samay curuxu curuxu waaw man punkal laa gën a mën a bëreel. waaw luur quoi su ma jàppante waaw maanaam luur laa gën a mën a bëral ka lese quoi. ñu gisoon la fan yi nga singili woon booy bi nga xamante ne mooy Liss Ndiago lu tax nga singili woon ko te nga ay victoire ëpp ko li nga bëre nga topp ko singili ko da nga woon dafa am loo ngeen woon rek la yaa moom ku nekk dem bàyyi sa moom mu taxaw wala lan la. ndeysaan non kooku noonu sax maanaam moom léegi sax lañ may tere di wax si booy boobu. Mhm. parce que xam nga rek. parce que pour man amateur yi pour man lépp luñ bëgg rek maanaam ñun dañ si war a di dox. waaw maam maa moom suñu combat coow la rek amateur yi bëgg ko waa diaspora bi ñëpp di si waxtaan sama gars yi ku nekk di ma vocal nit fu ne nekk fa xam nga ñu may wax si waxu booy boobu xam nga rek moo waraloon sax xam nga rek ak coow yooyu noonu amoon ci yëpp mais dañoo dem ba si biir mu mel ni nekkatul léegi affaire sport quoi. parce que mu ngi doon indi coow mu ngi mu ngi naroon indi coow quoi ndax rakam waaw waaw noo du maa moom sax mais jàmm fi si fu mu dëkk mhm. xam nga jàmm gën dafa am ay nit Baay Faal yi te Liss Ndiago jàmm gën la dëkk moo tax léegi bëggatuma sax di wax lu jëmati si moom te parce que rakam dafa génn bëgguma sax di wax di ko tontu mais moom dafa génn am lu mu wax xam nga ba nar fa indi coow seen koñ xam nga moo waral sax léegi ma bàyyee wax si booy boobu noonu Liss Ndiago billaay walaay taalaay. mais est ce que xam nga ni yow ak moom di ngeen bëre. waaw dinañ. parce que da ngeen booloo da ngeen tolloo mbooloo. Mhm. tolloo gabarit. ba pare yéen ñaar ku leen tëgg lamb jooju day stade bi day fees del. waaw Dieye production rek woo na ma doon ma wax si combat boobu mais comme li ma la wax nii rek am na leen loo xam te ni bu naree am si sama diggante man ak Liss Ndiago man ma bàyyi combat boobu bañ koo bëre moom a gënal ndax man sport lamb sport la. mais lamb baaxoon loolu ku gis. waaw waaw loolu mu demee lu raw loolu am na ci. waaw dëgg la lu leer loolu am na si mais xam nga rek maanaam bëgguma maanaam luy jugee biir si foofu di jugee si man moo war a ma bàyyi léegi combat waxatuma si waaw li nekk sama kanam si laay wax waaw maanaam ñun ñi nañ bàyyi di zizane si waxam waaw nañ bàyyi di zizane si waxam. man li lan ngay dégg parce que am loo xamante ne tam soo ko waxul ñi seet ñi lay seetaan du ñu xam lan la. liñ lay tuumaal da ngay taxaw xam nga liñ naan weddi du ragal du ragal setal sa der il faut que des tamit nga génn nga wax nit ñi xam ne kat diw mi lii moo nekk ci moom waaw maanaam comme li ma la wax rek man am na interview yu ma def mais commentaire yi ñu si nekk wax la ñuy jugé di wax xam nga yenn saa sax da ngay gis comme dama siy lire am am na commentaire yoo xam dama koy lire sax di tuur xewal. waaw li ngay wax. barki arxuraan te parce que li li ñu may xoolee di ko wax xam nga doxewu ma foofu man Baay Faal laa mais ama man war naa am combat ñu laaj ma si ne ma jaay combat bi ndax amateur yi loolu lañ bëgg. Mhm, mooy kan la ñuy dékk mi ko da ngay toog di màcc tuñ di di waxu da ngay góore. xam nga man yooyu laa gëm man làmb xam nga du affaire moo loolu. affaire jàmbaar la waaw kay gis nga ndeysaan te te xamuñu ma ñiy wax loolu ñëpp xamuñu ma ñu ma fréquenté man ñi nga may laaj ñoom Ibra Fall man du ma sigi sax xool nit waaw lu ñu naan tagg sa kuy tagg sa boobu doo juum barki alxuraanu karim nañ bàyyi di gise nit ci waxam bu Siteu Baay Faal la waaw yooyu yëpp gis nañ ko Siteu si daal ku fi njëkkee taxaw nañ ne day mandi day day naan mais ana mu tay yooyu yëpp weesu na man lu raw loolu lañ may waxal yenn saa sax gars yi dañ naa ma day tux yàmba <laughs> te man ku ma xam nekk xale nekk ci yoon man su ma tuxee la laay def ci làmb ah dañ waxante dëkk bëre huit combat am six victoire maanaam nañ bàyyi di gise ci waxam waaw di nuyu amateurs yi bu baax waaw ñoom ndeysaan ñooñu ay borom baax lañ amateurs yi ñoom luñ bëgg ñun war nañ ci yëngal ba àdduna ñëpp gis ko da parce que làmb suñu cosaanu maam la làmb nekkul la affaire non non làmb xam nga waaw foo ndax ku bëre daanu moo loolu kay jeex na noonu la demee quoi nañ bàyyi di gise ci waxam day xam ne Bou Siteu Baye Fall la xam nga du bandi du sàcc du kolosaar waaw loolu laa bëgg ñu koy bàyyi ñu koy ñu koy kii quoi. mais Bou Siteu fan yii dañ la génn gisoon nga génn wax ci coronavirus bi ñenn ñi ne Bou Siteu léegi day politique. parce que ku la dégg ni ngay waxee nga tagg ma Faye Sall tagg tagg tagg Macky Sall ah da nga doon politique wala boobu nu mu demee noonu. non pourtant politique wu ma sax. te parce que ah, dañ man ñu wax de nee bu sotee léegi politicien la. dafa nekk balaa boo xam te ne lu bees la Sénégal. doo wax sax Sénégal ndànk doo ko waxee sama micro parce que dégg naa la ngay wax naan coronavirus yi wax yoo xamante ni noo mënee loolu bu sotee toog ci micro bi mu neex gars yi wër la. ngay wax kaa yoo xamante ni importé waaw kaa communautaire bi communautaire bi waaw te parce que xam nga lu waral lool te parce dama yàgg a gis médecins yi génn di wax xam nga ma yàgg a gis médecins yi yàgg a génn di wax maanaam nit ñi daanuñu dégg affaire yi kaa yi di gën a yokk ma xam ne lii nii ma ma toog ne non lii nii du ma ko bàyyi noonu ko il faut que ma def benn émission am nu ma ko waxee xam nga faatu yàllaaw moom mooy fin boo deewee moom jeex xam nga ma ma xam nga rek ma def loolu ko waa ndax médecins yàgg nañ génn di wax xam nga fu Sénégal ku nekk waaw te man porte de voix la maanaam wax naa li nga xam war wax li nga day sauver sama dëkk sama réew maanaam looloo tax sax ma waxee ko noonu noonu quoi mais bu sita ko xam xam ne jàng ku jàng la mais maa ko waxee noonu xam nga rek yaa ma gën a xam maanaam gis nga affaire bi daw TikTok bi foo dugg xam nga gis ñii ñi di ma salange xam nga affaire yi neex quoi gis nga TikTok bi boo duggee waa diaspora bi ku nekk di ma TikTok foo xalaat si àdduna xam nga loolu dafa neex jàmm jooju noonu xam nga nit ñi tamit gën a maytu feebar bi ndax feebar bi moom lu ñu naan fagaru moo gën faju mais daa mel ni jeex na fi da wala des na ba léegi. non instant yi jeexul. non bul wax jeex na jeexul. damay laajte de. jeexul na gars di takk max di fagaru ndax bu ñu dégg Macky Sall bàyyi na couvre-feu bi rek genn coronavirus bi jeex na jeexul nañuy fagaru bu baax di moytu waaw lu ñu naan fagaru moo gën faju na ñuy fagaru takk coronavirus bi jeexul mu ngi ci réew mi ba tey. waaw couvre-feu bi daal lañ laa xam ne moom Macky Sall bàyyi na ko mais buñ basé wu si couvre bi jeex na rek kon mooy coronavirus xam nga couvre-feu a coronavirus du benn waaw kay noonu la demee nag mais jeexul na gaa yi di fagaru bu baax. ñu gis la nga bëgg sa dernier combat am ci ndam ndam lu neex neexal stade bi supporter yi ñëw. nga jóge ci loolu rek ñu dawal tuuti coronavirus bi ñëw. tëj réew mi fi mu toll nii nag làmb ji jéekuwaat na mën naa ne ibbeewaat na sax ndax combat yi mag yaa ngi taxaw. su ma juumul sa combat bi taxaw na. Mhm. dama bëgg xam Bou lan moo tax nga dem jël Malick Ndiaye 37 fou parce que Malick Ndiaye ñëpp a ko fi naa génn yàgg na nga dem jël ko lu tax loolu. waaw Malick Ndiaye lu tax ma jël ko rek te parce que xam nga rek coow comme lu ma la wax rek coowul làmb xam nga amateurs yi maanaam lépp luñ bëgg rek waaw dañ si maanaam ñun dañ si war a dox waa ndax ñoom dañuy suivre làmb dañoo bëgg làmb man lu amateur yi ki man si amateur yi laa basé wu de ñoom luñ lu sama combat bu ñu wax ne lii làmb la rek man dama koy jaay xam nga da Malick Ndiaye Teranga dama duggoon na géejawaay xam nga daan fi ñaas-ñaas fu mu toog di ko ndamoo xam nga ñaas ñaas daa nekk ci digg ndëndëm waaw boobu ñaas ñaas daa nekk si digg mais dama ko bëgg a xam ne xale moo màgg nag waaw xale moo màgg pour ñëw affronter ko Malick Ndiaye du moom sax wax ji moo bari nii rek. Malick Ndiaye sax na de. Malick Ndiaye est-ce que xam nga ne combat wax la ko tey. te ah, parce que maa moom du yàgg nañ daje millier Malick Ndiaye xam na kuy bu Siteu bu baax a baax a baax ma xamal la loolu noonu tey. fi ma toog nii féex mi neex na de fi ma toog nii féex Malick Ndiaye musul bëre combat bu yomb da ngay xeex bay bëgg a balaa làmb jee jeex. billaay Malick Ndiaye sama combat maa moom déggoo naa ko combat dinaa xeex moom xeex yu métti soog kaa jàpp bëreeg moom yow yow tamit yow Bou Siteu kenn dul kenn dul wax Bou Siteu tamit. non yow sa combat day neex du yomb waaye Malick Ndiaye 37 fu 37 dofi lay àndaale. <laughs> non kooku day ay 37 fu mooy loolu Malick Ndiaye li muy jaanoo maa ko ëppale téeméeri junni yoon man avant lamb maa ngi woon ci leneen waaw fan yaa maa ngi ko dégg muy wax maa ngi dégg ay vocal la muy wax xam nga naan booy bi dama koy xam nga rek. waaw da laa bëgg a humilier yow mataate man daal leen rek laa koy na bàyyi mataate. mataate mi mais maa ngi amul bëñ du foowu góor. <laughs> mata maa ngi amul bëñ. waaw foowu jàmbaar bëre la ñuy def maa moom. maa Ndiaye combat yi mu fi bëre fàttalikul combat yi mu fi bëre dafay mat ay nit avant arbitre di kii mu daw nax la daan la te man bu dee noonu. bu dee loolu noonu la amul ndax protestant léegi am na. waaw protestant am na na gëm boppam daal te suul tànkam. xam ni jàmbaar ay dajal. bu Siteu jàkkaarloo moom moo ngi lay xool de xam naa ne Malick Ndiaye. Malick Ndiaye yaa ngi xool xam nga li ma lay wax bu baax. champion ngay dajal ndaanaan na nga sa bopp suul say tànk bi su combat bi moom mobiliser stade arène nationale ba mu fees ñëw jàppale dóor la dóor yi mais maa la mën maa la bu doole xam nga lu ma la wax bu baax waaw. waaw noonu lañ koy noonu lañ koy defee noonu lañ koy defee noo gisee combat yi nga xamante ni taxaw na ak fi làmb tolloo ñu làmb dee na saison bi tijjeewul mais combat yi ci bëri na ba ci bëri démb rek la Tapha Tine doon signé ki nga xamante ni mooy booy Niang. waaw Modou Lo Ama Baldé Gris Bordeaux la ah Garga booy bi nga xamante ne moo nekk Lansar. ak ñoom Tyson de Franc. Mm-hmm. nu gisee yooyu làmb ak fi làmb nekkoon. waaw xam nga làmb moom dafa deewoon. làmb dafa deewoon xam nga. promoteur yi ñëw di yëkkati waat combat yu mel noonu. ndax boo xoolee Balla gay 2 ak Gris Bordeaux xam nga loolu noonu rek loolu rek indiwaat na làmb combat boobu rek boo ko waxee rek jarutu ngay waxaat yeneen combat waaw maanaam loolu noonu rek day dekkilaat làmb ndax làmb deewoon na waaw ba pare dafa am leneen tamit li nga xam te moo gënoon di rey làmb muy arène nationale bi ñuy tijjil ba pare tëjël ñu Iba maar Iba Mar boo xoolee Iba Mar nga xam ne maanaam promoteurs yi fa lañ miin war nañ ci def taxaw taxaw seetlu war nañ ci def taxaw seetlu bu baax ndax loolu noonu bokk na si loolu gën a rey làmb waaw Matar Ba ministre de sport moom laay waxal maa ngi koy ñaan Iba Mar Diop ñun fa lañ miin fa lañ xam dëgg la arène nationale bi jege nañu trop mais maanaam li ñu ci wax dafa mel nit ki maanaam doo xool sa li la jege rek nga basé wu si loolu quoi dañuy wax si luy luy luy luy oublier làmb ndax imagine toi ñu tëjal ñu Iba Mar ubbil ñu arène nationale bi nga xam te ne li ñu ko bëgg a loué promoteur yi million ngay joxe bala ngaa tëgg. est-ce xam nga ne làmb amateur da cee bokk. amateur boo xoolee tey boo xoolee tey Dakar. amateur yi daan liggéey ba 3 heures wàcc tëj seen i place. dem seetaani làmb mais boo bëggee jógee Dakar ñëw Pikine day xaw a day xaw a métti nga bëgg a ñibbi doo am oto bu la yóbbu. arène nationale bi métti na ci promoteur métti na ci amateur métti na ci képp koo nga xamante ne day ñëw ci làmb dafa métti si ñoom. waaw loolu daal laa am lu ma si wax Matar Ba laay waxal ministre de na xam ne arène nationale bi dëgg la arène nationale bi macha allah ndax 32 milliards loolu du ay caaxaan quoi waaw ñu Macky Sall dafa ñu stade bu toll noonu kon lillaahi war a suule waa CNG nañ xam ne lamb ji nañ wàññi stade bi un million ngay joxe balaa promo mooy loolu loolu dafa metti am na si promoteurs yu bëri yoo xam ne sax bàyyi nañ tëgg lamb bàyyi nañ dugg na si guru wasa wax ni ma dégg parce que Serigne Touba daa am mbër yu ñu joxoon te instant loolu la ñuy bu jàllee ne ñoom pare nañ pour bàyyi lamb ndax lan la arène nationale waaw ndax arène nationale dafa metti ba pare ñu tëj Iba Mar bi yoon la ñu am stade bu ndaw Iba Mar Diop foofu maanaam mbëri ñun fa lañ miin. fa ngay gën a gisee sa bopp dafa neex nga tiim mbër mi muy bëree. waaw la toll arène bi nga xam te ni boo nekkee si kaw yow doo gis doo xamee sax ñuy bëre loolu mbëri mbëri nga xam ne sax siwuñu sax man ñooñu kenn xamul leen sax man ñooñu laa yërëm ndax imagine toi ngay bëre yow sii di sax yéen fi ngeen taxaw sax ak stade bi. nga muy soree dafa sori dañuy wax li nga xamante ne mooy jëmale lamb ci kanam te ñu wàññi stade bi million dafa bëri si promoteur yi xam nga maanaam doo tëkkale benn Gaston Mbengue ak benn Yidaly Gningue wala ngay tëkkale benn Gaston Mbengue ak benn Fallou Ndiaye maanaam nañuy bàyyi xel lool bu baax stade bi dafa metti nañ ñu ubbilaat Iba Mar Diop ñu fay bëre. su ma la déggee daal maanaam bés bu nekk ak na mu toll ak promoteur bu koy tëgg. bés bu nekk nu mu toll ak promoteur bi koy tëgg dafa metti yow Iba Mar Diop da nga fa daan gis sax kii am fa gars yi lañ daan joxe ay. ti ticket 1500 sax da nga gis yaa di ko jaay mais foo ko gisati xam nga loolu dafa metti ba pare dëkk bi léegi dafa dëgër affaire dafa metti nañ ñu ubbilaat Iba Mar Diop ñu gis si boobu bopp gën fa xam nga moo gën maanaam nañ def li nga xamante ne mooy jëmale lamb ji kanam. nit ñi delluwaat fa waaw yow gis da ngay gis sax Iba Mar Diop day am lamb sax nga gis gars yi tëj seen place yi ñëw dugg seetaan. dugg seetaan te parce que lamb maanaam. amateur da cee bokk amateur da cee bokk léegi maanaam kenn waxatul waxul lamb ndax lan Iba bi ñu tëj. pour pourquoi ñu tëj ko ak la moo tax ñu tëj Iba Mar Diop. mais nañ ñëw sa combat bi. sa combat bi combat bi ku ne xam na ne géej waaye Pikine la. naka nga koy waajale ci wàllu supporter entraînement yi est-ce commencé nga teg ci entraînement yi ci yoon comme na nga ko daan defee avant. waaw man depuis couvre-feu bi ba mu ba léegi maanaam bañ ba ma jugee sama combat ba léegi maa ngi entraînement. maa ngi sama entraînement di waaj a ba ànd seeg ñu ma si war a àndal. waaw maa ngi ci ànd ak ñu ma war a àndal di liggéey boobu léegi maa ngi entraînement bu baax a baax bàyyiwuma benn yoon. li may wax ni Ibra Fall mun na ma seede maa ngi samay entraînement bu baax waaw maa ngi dem salle chaque jour waaw lenn daal laay wax waaw autorité yi nañ ci jàpp xam nga waaw nañ ci jàpp bu baax a baax xam ne Bou Siteu maanaam nekkatul kuy foowee làmb waaw ndax yow boo Bou boo xoolee man xam nga maanaam du yoon quoi changement am na mais nañ ci gën a jàpp man mosuma am combat ba autorité jàppale ma te loolu dëkk géejawaay dama dëkk géejawaay man dama bëri ay gaan yu nekk si diaspora bi ñoo xam ne dañu ma bëggal seen bopp nekk si diaspora bi di ma bëggee ku si mel ne ñoom amet ñoom Alaaji xam nga nekk si kaw nekk Espagne gars yi nekk Italie ñoom Xaadim Bamba wër nañu ma amee combat waa diaspora bi rek a may may xaalis mais pourquoi man fi ma dëkk man géejawaay ak li ma ak ni ma mel biir géejawaay pourquoi man autorité waruñu mën a ma am combat même su ma xamul autorité bi ñoom ñu fexe fexe ba ma gisante ak ñoom ñu jàppale ma si wàllu bolok su may bëree sama booy dañuy am problème si buntu stade bi la nekk nekk ñu am bu ñu duggee policiers yi xam nga rek di leen jàpp di leen colomotif ay agression maanaam loolu maanaam loolu xam nga rek loolu rafetul. ñàkk a jàppale bee ko waa ndax ñàkk a jàpp moom saa yu may bëree xam nga rek dafa am samay booy yu ñu yu bëri yoo xam ne te parce que gis nga mbooloo bi may toog day am ñu dugg booy ñu am ticket bëgg naa daal dañ may jàppale si côté bloc barki Alxuraan dañu may jàpp si côté boole samay mbooloo ñëpp di dugg nit ñi gën a man ba tey gars yi gisaguñ lu may mobiliser de. Mhm. ba tey gars yi gisaguñ lu may mobiliser. lépp lépp lépp duggagul. lépp lépp dugg yow gis na su may bëree si bunte bi li fay nekk li fay nekk rek mooy ëpp luy nekk si biir xam nga te ay booy ndaw xam nga am mbër boo xam ne nekk xale ñu bëgg ma xam nga di sonn si man yow samay open press rek booy boo gisee mooy loolu ba wax di di wax ne tamit 100 pour 100 bi 100 pour 100 bi may dégg. waaw bu Siteu gis si boppam quoi waaw bëgg naa 100 pour cent bi nañuy yemale mbëri waaw maanaam du si man kese am na si yeneen boo yi nga xam ne sax ñu ngi fi sax. mais yow mi nga xamante ni yaay xale yaa war a dem fekk leen wala da bëgg ñu woo la. non 100 pour cent maa ngi si ndax dañoo ubbi benn groupe WhatsApp boo xam ne 100 pour cent géejawaay bi la xam nga. gis nga 100 pour cent Balla Gaye bu amee combat pour cent bi ñëppay génn taxaw pourquoi Bou Siteu waru mën am combat 100 pour cent bi ñëpp génn taxaw ma comme ni ñuy taxaw Balla Gaye 2 100 pour cent la ñu wax 100 pour cent géejawaay mbëri ndaw yi nañ dañ ñun dañ si war a gis suñu bopp ndax tapasaka ñoom Balla Gaye 2 day après ñoom dañ fiy jógee ñoom waaw ñun ñoo fi des day yàgg rek mais làmb ñun ndaw ñi ñoo koy teewi ji kon 100 pour cent bi nañuy bàyyi booy ndaw yi xel sama genre yi ku ci mel ni ñoom buusi da xam nga ñoom Baye ma Ndiaye gars yi 100 pour cent bi daal nañuy bàyyi booy ndaw yi xel bu baax ay ñoom maca bu ñuy gars yi mooy loolu nañuy bàyyi 100 pour cent bi daal nañuy yemale mbër yi rek nañ yemale mbër bu ndaw beeg nañ yamale Balla Gaye ak Bou Siteu rek daal waaw ñuy teewal ñëpp waaw lu lu li nga xam te ne dafa war a dem ci 100 pour cent bi bu buñ koy yamale si yenn mbëri mag yi nañ koy wax mbëri ndaw yeeg mbari mag ñëpp di koy yëg ñun ñu siy gis suñu bopp bu baax waaw loolu laa amoon lu ma doon wax sax si 100 pour cent bi waaw. looy wax Malick Ndiaye 37 fu ñu bàyyi la nga tàggatoo woo say supporters ñaax leen. Malick Ndiaye moom lu ma koy wax rek muy na waaj te xam ne bisu combat bi. waaw na waaj daal bu baax a baax te xam ne du ma du ma taxaw moom dama koy xaas min daraami barki Alxuraan du ma yàgg sax ak moom barki Serigne Touba Mbacke waaw Malick Ndiaye loolu rek a am lu may wax si moom ko waa kooku combat wo du yàgg moo a du ma bëgg sax di wax si moom lu baax bu réel du yàgg dama koy dóor dóori métti daan ko Malick Ndiaye mag la amatul doole Malick Ndiaye maa ko bu doole fuuf Malick Ndiaye buñ man ñi may contactal école bara xoolu ñu Malick Ndiaye transfert fuuf buñ na ko Bou Siteu nga am ah lamb jooju dina ko waaj bu baax est-ce que xam nga ne daan la mën na koo delloo ci lamb dégg la wala Malick Ndiaye fu mu toll nii laa wax fi tam toogul taxawul te parce que xam na ni xale lay bëreel barke Alxuraan man loo ma loo ma lu ma leer na xam na ni xam naa ni man du ma ko may jàmm baaru gars yi dina ko bànd bi ngay dooteel noonu la demee nag yow sib nga lépp waaw yow sim nga lépp Ouzin yaram nga nekk borom baax. waa di nuyu tamit ki ñu boole muy per Moussa Gueye. kooku sama papa la kooku papa daf may conseil saa su ne. fuñ daje waaw ku baax. père bilaay père Moussa Moussa Gueye maa ngi koy nuyu bu baax baax wax na ma si yow yu bari xam nga paa bu baax la maa ngi koy ñaanal yàlla na jàmmam yàgg. waaw yàlla bàyyi ko bu baax a baax. di ko nuyu moom tamit ah kilifa la ci géejawaay ndaanaan la maa ngi nuyu père. du ma sooy ci yow maa ngi leen nuyu baax a baax di la bëggee sant nag waaw bëgg naa tamit sant tamit ñiy jàpp si combat bi ku si mel ñoom Ibra Fall mécanicien sculpteur yi nekk fii ñoom Saala ñoom Baba xam nga ñoom Jogo Massa Ndiarème gars yi maanaam dañ ciy jàpp waa Gunaas mécanicien dëru yi ñoom Maurice xam nga gars yi képp kuy dawul fii moto rek maa lay sant bu baax di sant tamit bàcc waa Sandaga ñooñu dañ may jàppale bàcc doomu nday Sadibou ñooñu dañuy jàpp si combat bu baax di sant tamit Angel Fall benn soxna soo xam ne Grand Yoff la dëkk Angèle waaw moom ndeysaan moom day taxaw détenu yi quoi ñu nekk si prison yi waaw moom ndeysaan moom Angèle Fall Grand Yoff la dëkk di nuyu rak magam Mbayang Fall maa ngi koy nuy bu baax Angèle Fall fan yi dañoo war a dem ñi si feene dañoo war a dem feene waaye dëkk bee Koutal lañ war a dem si moom prison yi rek lay wër na yàlla lay wër di leen jàppale instant daf leen di déglu di laaj la luñ bëgg ñu jënd ko lépp man si délégation bi saa dem si prison yi di dem man si laay bokk Angel Fall maa ngi koy sant bu baax si loolu di ko wax ni nante yëpp kontaan nañ si yow te parce que Sénégal loolu ñu bëgg jàmm xam nga 100 maa ngi nuyu ndongo seen bu baax berk Demba Ndiaye la benn boo doon ñibbi mu jox ko lam bii nii ak jaaro bi ne ko joxal ma ko bu sita waaw couleur affaire bi nekk maanaam ku imagine toi ku nekk prison xam nga yëkkati lu toll nii lam xaalis ak jaaro dama dama nga joxalal ma ko Bou Siteu loolu nekk lu ma marqué ndongo seen maa ngi koy ñaanal daa war a taxaw daa war a taxaw maa ngi koy ñaan yàlla nañ ko bàyyi ndax yàgg na si koso bi torop mu ngi dawal quatre ans am xam ñoom papa ding-ding gars nekk foofu noonu di bëggee Sambo sambu maa ngi koy bëggee nekk itali doomu ndey Lamine Jabaate gars yi dañ siy jàpp gars yi nekk si diaspora bi du nuyu Ibra Fall bu baax di nuyu ñoom Mbay war a xam nga di nuyu ñoom Papa Ndiaye gars yi takk xari fii xam nga di sant sama waa koñ bu baax di nuyu waa diaspora bu baax ñoom El Hadj gars yi nekk Leewtoo TV xam nga groupe Babacar bi ñooñu dañ may conseil dañ may conseil naa ma booy defal nii xam nga del waxee nii di nuyu Siteu bu baax sama turandoo bërki démb rek gàllam laa jógee xaalis bu bari la ma may Siteu waaw maa ngi koy sant bu baax borom baax la Baye Fall la waaw maa ngi koy sant bu baax di nuyu ñoom Abdou Seck waaw Abdou Seck moom combat bi maanaam combat la waaw sama combat bi maanaam combat bi la combat Abdou Seck xam nga di nuy waa jàmm gën bi ñëpp di nuyu waa waay waa Massa Ndiarème xam nga waa Cité Gaddaay tamit maa leen nuyu ñoom Baye Sall Cité ñoom Baye Sall guy gi sama waa ko ñoom Maurice waa mafia maa ngi bëggee gars yëpp képp kuy jàppale bu Cité rek xam nga maa lay nuy bu baax nag su ma limee damay man ñi may jàppale ñoo bëri waa ñi may jàppale dañoo bëri trop maa ngi sant gars yëpp war na alxuraan di sant waa diaspora bu baax a baax waaw di leen nuyu bu baax di nuyu ñoom Ahmed ñoom alaaji xam nga maa leen nuyu bu baax waa Italie sama góora mu ngi Espagne moo jabaram nen ne maa leen nuyu bu baax di leen sant di leen gërëm di nuy tamit xam nga king king bu Italie king men mbër la woon moom dafa may bégee di ma yónnee xaalis king maa ngi koy sant bu baax di sant tamit xam nga Pape Silla sant yàlla couture Pape Silla maa ngi koy sant ay ñoom Makan ñoom Alioune Naar téyeer yi nekk fii berki dem makan daf ma woo ba atelier am jëlal ma yaakaar lu ne la may doyee mu jëlal ma masiir na ma yow maa li ngay sol maa la koy jox ma xar na si gars yi jàpp ma a xam <laughs> mi léegi day dóor <laughs> non gis nga noonu lay demee tey ñëwoon fii seet si Bou Siteu ah waxtaan moom ci lu jëm ci làmb ak li nga xamante ni moo fi jot a lépp maa ngi nuyu ñëpp du ma ñëw géej waaye ba ñibbi nuyu ma Sooda Sooda yow maa ngi lay nuyu bu baax a baax di nuyu ah Yacine Yacine maa ngi lay nuyu bu baax baax ak Adama boobam saabu yi maa ngi koy nuyu bu baax a baax Aïcha ca Grand Yoff nuyu naa la bu baax a baax kontaan naa ci yéen bu baax a baax kàggu kontaan naa ci yow Baye Bass maa ngi kontaan naa ci yow baax nañ bu baax a baax. di sa waa bu baax a moom borom baax émission bi ñu indi ko fii quoi moom day jàpp si affaire yi bu baax. waaw maa ngi sant waa Géejawaay bi ñëpp nag waa Cité Gadaay Massa Ndiarème di nuyu soxna yi toog ñoom ay borom baax lañ maa ngi nuyu bu baax a baax waaw jërëjëf. ni lañ koy defee. deneen abonné si wasaare làmb deneen bës kolos boobu noonu kolos bu rouge lépp li nga xamante ni dafay daw muy waaw lépp li nga xamante ni dafay daw day jàll si seen i téléphone ngeen koy suivre bu baax a baax bësal